jërë jëf mbokki yi bi départ na euh, générique bi départ na jàngat làmb tàmbali na ak Baye Djily ci wasaare làmb ñuy ñaanal suñu maam maam góor gi Njaay mi nga xamante ne moom lañu ñu dégg léegi ci générique bi yàlla suñu borom guddal fanam lool te mu ànd ak wér yàlla defal ko wér bàyyi ko fi ba ci kanam ak kanam euh, ni ñu ko daan defee saa su ne noonu lañ koy defaatee tey ci jàngat làmb ji ma ànd ceeg sama papa euh, sama xarit sama lépp du père Birahim Ndiaye père maa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 Eh, maa ngi nuyu ñëpp di ñaan sama kàddu yàlla na yàlla def luñ fekk leen ci jàmm eh, ku ci am jàngoro yàlla na ko yàlla teggi ku ci am ñàkkit yàlla yàlla difal siisal say poos yàlla a gën li barakatu rasul di ñaanal maam góor gi Njaay moom nga defee saare hmm. waaye nag bu leen fàtte di ma tegal falan bi falan falan tamit ñaanal naa ko Bachir hmm. ah, léeg-léeg ba di ma ko dugalal kooku tamit eh, dina ma kii trop parce que fala gi yàlla yàlla yokk leeram yàlla yàlla xale àjjana ak mba bokk mbokki mbër yi fa nekk ñoom fa fekk ñëpp hmm. ak barakatu rasulaay hmm. eh, di kontaan trop di nekk ak yow jëli hmm. naa question yi ko posé eh, tubaarkàlla sant yàlla di nuyu ñëpp nag di nuyu waa caméraman ñëpp ñoom Adama ak ñoom Bachir ak kàggu kàggu ñoom ngi nuyu ñëpp daal waaw jërëjëf kon nag ñu fas yéene dugg ci laaj yi Euh, per dafa am tey combat bu ma bëgg combat bi nag bi ñu war a waxtaanee euh, ki ko ñaan euh, daf ñu envoyé message comme ni ko ni ñu ko waxee woon bëgg ñu leeralal ko ci combat bi doxoon ci diggante Modou Lo ak ki nga xamante ni mooy Baye jot mu doon combat boo xamante ni combat bu neex la combat bi ñaari xale lañ yoo xamante ni ku ci nekk da doon wane sa bopp Modou Lo jugee ci défaite ci diggante ak Balla Gaye 2 am Baye mm-hmm. boobu ban gis-gis nga ci am waaw jamono yi ñuy bëree. Hmm. Euh, combat bu neex la woon ci ñoom ñaar ñëpp. Hmm. parce que boobu Modou Lo Balla Gaye daan na ko. Hmm. waaye démérité wul ci combat bi. bëri na ki ko daan daaraan la Balla Gaye ma daan du gàcce. parce que Balla Gaye moom buñ doon wax ci moom tey doy na ay émission lay doon. waaw Baye Mandione tamit mbër la tubaarkàlla jamono yooyu mu ngi ci forme. parce que boo xoolee Baye Mandione rek jamono yi muy bëree ma ma euh, Modou Lo. boobu boo gisee forme bi ci ku xam bëri. ci ku bëri nga xam ne Pape Baye Mandione forme mu bëri waaye nit dina indi forme te juum ca biir xam-xam ba hmm. dina indi bëre tey bu des jël décision pour daan waaye ci biir décision booba mu def juum njuumte ba hmm. ñàkk combat am loolu ça hmm. arrive loolu nag ay ndogal yu feeñ ci biir bëri rek lay doon mais boo gisee ma Mandione forme bi mu indi ak ni mu bëri yoon mais dafa am lu ma ci jàngat nag mën naa ma juum nag ma naa ma juum mais dama gis ne Baye Mandione seen taxawaay ñoom ñaar ku nekk pied gauche nga teg mais Modou Lo pied gauche bi mooy mooy forum mooy mën na kële nag bi da koy xeexee mais du ko waaye ma ñëw waaw damaa gis ne da koy xeexee. mooy di ko gën parce que konk bi nga xam ne moom ngay moom nga mën a bëree saa yu ko xëcc jàppee doo ko dawalee. Hmm. bi tànk bi nga mën a bëree. Hmm. suñ ko jàppee doo ko xañ waaji. Hmm. waaw da ko doon parce xam nga li ci war a def da nga koy bàyyi waaw parce que da ngay xam da ngay xam a def. moo tax doo moo tax doo ko tiit quoi. waaw te gis naa ci biir bëre bi ñaari gauche ku nekk jub ko sa morom ci taxawaay bi. waaye gis naa ne bàyyi ma njoon euh, combat bi gauche bi da koy xeexee mais du bëri. mais du ko du ma du ci du ci feew droite mm. bi la gën a ma defar loolu laa mm. gis mm. xaw ma nag man naa am juum naa wala juum ma eh, kon nag ñu dugg ci loolu daal laa ci gis. jërëjëf mbokk yi kon Mbodj Sonatel moo ko moo bindoon message boobu. su ko defee dañuy dem ci écran bi rek. Eh, jàngat làmb ji eh, diggante Modou Lo ak Baye Mandione. Mm-hmm. ak Père Birahim Ndiaye Baye Djili. Mm-hmm. su ko defee mbokk yi ñu dégtal leen ko noonu Père Birahim ñu dem ci tele bi. ok bisimilah. Père combat baa ngi noonu. ñoom ñaar ñu ngi ci digg géew bi. Mm-hmm. Eh, di def seen débat def fii nag daa mel ni Modou am na lu muy wax baay Mandione ba muy mer. waaw parce que xam nga mbër bu tolloo fii. kenn ku nekk. la plupart nag. Hmm. Ah, am na ci ñoo xam ne dañuy saaga am na ñoo xam ne duñu saaga. Hmm. mais ñi seetaan dañuy yaakaar ne ñu ngi saagaante fekk saagaante wu da hmm. ko naan maa la mën du sa morom sifflé léegi ma daan la yow du ma tàgg xam bi na xam lu ñuy wax fii. waaye ñun da nga xam ne yàgg nañoo tooyal ngeen taxaw def nii. la plupart yow gaawal ma sifflé ne bu at bi ma dina daan yow xam nga ko sax Mm. yow xam nga ne mënoo ma daan kii naa la nangam yow xool sa tànk yi waa xool kii waaye yow nangam maanaam sayteente la quoi mm-hmm. ak ko dem si yàlla si Boy Niang yàlla na ko yàlla yërëm xale ko àjjana bu mm. a saaga nag mm-hmm. daf daan tooñ dil draay di wax waxi reelu yooyu mm. xam nañ ne làmb bi quelques minutes moo leen boole léegi mu jeex kenn ku nekk dem seen kër mm-hmm. kon tey waxante lu ñaaw xaju fi xaju fi waaw di waxante lu ñaaw parce wax nit lu ñaaw ngeen dajawaat ci mbedd mu di la xool nga di ko xool nga di ko baatal baat yu ñaaw te loolu te làmb day jeex. loolu hmm. dara jaru ko. Hmm. may sant sama mbokki mbër yi ak sama xale mbër yi ci toll. Hmm. ay quelques minutes moo leen boole ku nekk dem këram. làmb day jeexit ngeen daje ci ngénte yi daje ci dëj yi ba lëkk si biir ku ne di xool sa morom lu ñaaw dara jaru ko. moo tax mën ngeen sayte te tooñate ku ne sabote ci morom. mais mu bañ a doon yu ñaaw ko am na yooyu nag day am fii. waaw ay ci ñu dem. waaw. arbitre bi sifflé na. waaw Modou teel ma combat bi. voilà sëñ Bass. Modou Lo moo féetee nan père. Modou Faye moo féetee seen ndeyjoor. ana Baye Mandione. Baye Mandione moo nekk gauche. ñoom ñaar ku ci nekk garde normal la teg. ku nekk garde normal la teg. Hmm. ba pare encore ku nekk sa taxawaay baax na fii. Hmm. nii taxawee nii bu ñu ko méndiree kenn ku ne sa taxawaay baax na taxawaay bu bien la yor. parce que fii tamit naa la wax leen. Hmm. Baye Mandione boo ko xoolee xam ne muy super forme. Modou Lo bii tamit super forme la teg ñoom ñaar daal fi mu ne kenn ku ne pare nga taxawaay bi baax na forme bi rafet jekk na. taxawaay it baax na mm-hmm. parce que position dañ koy jàng mm-hmm. taxawaay dañ koy jàng mm-hmm. waaw boo ñëwee ci karaté wala judo ñi nga xam ne ñoom dañoo dañoo xam la mooy ak sport dañ lay jàngal ni ñuy taxawee ni ñuy def gis nga ko moo tax ñoom yëpp kenn ku ne xam nga taxawaay bi baax na daal kon daanaka taxawaay bi ku nekk ñoom ñaari mbari waaw jubu nga sa moroom waaw kon waaw ñu ngi leewaatoo waaw ñu it baax na waaw ba tey ñu ngi jaar yoon daal. ñoom ñaar ñoo ngi jaar yoon. Modou Lo koy xool Baye Modou Lo koy xool. waaw waaw mm-hmm. waaw. voilà gis nga fii. voilà très bien gis nga fii. Mm-hmm. Baye Modou Lo dafa favoriser xeex bi. Mm-hmm. mais Modou Lo ñëw tey pour xeex. daa ñëw pour lan. pour bëri. gisoo daf ko lancé dafa jëm droit gauche bi ñëw droit bi mu sëgg. gisee bi mu sëggee. rien que rek pour jéem moom xam na ne Baye Mandiane combat bi li ko ciy génne mooy jaxasoo bee ko ciy génne. mais xeex bi du ko ci génne parce que booba foo waa calculer ñu ne ne Baye bu dee xeex. Hmm. Baye Mandione ko ak gën a agressif ci xeex ci jamono yooyu. Hmm. ci jamono yooyu mais nag hmm. diggante moo di yokku na fi. moom it yokku na fi. waaye moo tax gis nga bi mu ko jamee gauche yi dafa daal laaw droite mu waaf. gis nga mais waaf bii nag gis nga comme copain bi dem na. dafa distance bi dafa sori. gis bi sori woon. day daw paqueté ko. moo du da koy paqueté. waaw parce que fii ne fii ne bu déparé. Ah. du ak si waa ji da koy góolu. Mm. d' accord nga ci man. d' accord naa bu fi déparé parce que bi dafa sori. Mm. léegi bu fekkoon bi mu waafee da ko xool. Mm. xam nga dafa sëgg ci suuf. mais bu waafee dafa waroon di sigg rek paqueté ko. bu soriwul woon da koy sigg paqueté ko. mais mënu ko paqueté parce que fi mu waaf dafa sori. dafa sori waaw ah, dafa sori booy boo bu ñëwee kii bi da koy jàpp. ayca ñu dem ñu dem waaw. mu daw jëli ko mu daw jëli ko. am tànk bi am tànk bi. jàpp bàyyi ma njoon. voilà jàppante bàyyi gis nga lii nag la bëggoon. Mm-hmm. jàpp na fii gauche bi jàpp na droite bi jàpp na Baye Mandione tamit bal na loxo mais Baye Mandione bi mu jàppee droite am bii. Hmm. léegi nag dafa war a gis nga xam nga léegi pied moo ne ci kanam bi hmm. mooy li ma la waxoon ne la gis nga tey jii bu fekkoon ne tey jii pied gauche la. Hmm. day changé bi indi bii. mais bii lay xeexee mais bëree mais bii lay bëree. comprendre nga li ma wax. mooy bii moo tax bii bii bi mu taxawee pour xeex bii la taxawee. mais ba ñu jàppante pour bëree bii la indi. bii la bëree kon xanaa d' nga ci li ma la waxoon. d' accord naa waaw. ne côté bii lay xeexee. mais bu jàppante ba day indi position. kon kon bii la a bëree lay xeexee waaye droite hmm. nga na. Hmm. léegi nag kii téye na nii mais comme droite bi kii jàpp na bi dafa noonu ràcc gauche bi ci ginnaaw na. Hmm. daal di téye ba bañ a nag ne tekk. waaw mais moom fii ne dafa favoriser xeex bi moo doog wut bëre bi moom moom xeex bi lay wut. moom gisoo day dóor rek. ci dóor boobu nag ci lay defee ouverture bi nga xam ne bii bi ko waaj a bëtt du ko gis. nit dina ko agsi foo xam ne fii. Mm. fa mu koy àgg dootu mën a rëcc ñu dem. waaw parce que saa yoo xeex xam nga xeex jëri wax naa leen. Mm. saa yoo xàccee rek ubbi nga bunt. Mm. xeex ñaar suñu jàppee jàppanteel suñu taxawee teeyal dafa foo xam ma ñëw ma ñëw gis nga bëre da ngay toll foo xam ne fii xeex la ciy génne mais dafa am xam ne bëre nga ciy génne. gis nga fii bi mu rasoo nii ba sukk nii xoolal loxom bi mu doon téex kat fii lay wàcc. daa day soli wax ci soli bi lay jël yéeg ko bu léegi loxoom bi fii lay wàcc rek su lay wax ko yéeg ko mais nag fi ne nii ba tey Baye Mandione li mu gën def ci boppam mooy duma yi ne dafa ñëw yaakaar laa wax de xaw ma dëgg loolu waaye dama yaakaar bi ma jókka dafa ne Pape Modou Lo ko duma duma yu metti parce que mu ko koy wax sax ah. avant arbitre bi di ah, mu tey boo dëggalee sa bopp dinaa la dóor ba nga kon xam nga ne kon li ma la wax ñëw la mm-hmm, mm-hmm. parce que loolu la wane ci bëri bi mm-hmm. parce que dafa favoriser xeex bi bàyyi kii ak bëri bi te leen nee naa la bëri du ñu laaj ku dóor dañ naan ku daan. ku daan comme dañ naan ku daan. Hmm. mais dana am foo ne boo fa tolloo bëreel mais am na foo fa toll ne xeexal. <coughs> kon d' accord nga man. d' accord ñu dem ma Modou Lo mi bi téye na. Hmm. waaye ba tey Modou Lo mu ngi wut bëri bi hmm. moom bëri bi lay wut rek. voilà léegi bàyyi ma gis nga bàyyi ma ñu rasu na ko mu rasu. mais gis nga toujours droite baa nga ca kanam. moo tax may mais rasu bi ba tey dafa des. waaw gis nga bi mu téye loxom bii. waaw bi waa ji ba téye. day puus ndiglu waa day puus ndigu Modou Lo moom Baye Mandione moom Baye Mandione ni bu poussé mu ndigg li daan hmm. tànkam du gauche bi day ràcc ci ginnaaw su ko defee taxawaayam day gën parce que téye na hmm. gis nga loxo bi su rocc ko da koy witt da koy witt ci mu daw romb ko mu pakete ko bëri bu rëy am fii hmm. waaw mais loolu nag bu fekkee xam nga ko ci nga koy def boo ko xamul tamit mënoo ko def waaye waaye am na loolu am na fi waaw ba tey ñu nga xandaalu gis nga wëndeelu nañu ba tey mënoo ngi wut bëri rek waaw xam nga plaqué bi. plaqué bi bi mu ko doyee plaqué jotu ko dafa doon raaj ci tànk bi rek. waaw bu sew kii kii bàyyi ma jox hmm. xam nga moo plaqué. Hmm. Eh, kii waaw mu doo ko doo plaqué. mais gis nga tànk bi. Hmm. boo ràccee nii rek bi pël mu dem. parce que plaqué saa yoo ko defee bu tànk bi desee fa mu des rek waa ji da jàpp. mais soo ràccee tànk bi rek loxo bi day deñ mu ngi mel ni nga yóotu sama pooj nga taxaw jàkkaarloog man nii yóotu sama pooj bu ma ràccee nii rek daa loxo bi de. day dañ waaw day dañ facilement. Hmm. waaw su ko defee nag léegi. dem plaqué na ko dellu si dellu si waatal dellu si waatal ci plaqué bi tuuti. waaw waaw bàyyi gis nga. plaqué baa ngi noonu. voilà plaqué voilà gis nga ko. Hmm. waaw bi mu ko plaqué fii. Hmm. ràcc tànk bi la gis nga moo tax gis nga li ma la rek. surtout teel ma ko waaw teel. waaw kay. voilà daf ko plaqué mais Baye Mandione dafa mel ni dafa suruxal Modou Lo. waaw ba suruxal boobu nag xamal na. Mhm. mais gis nga bu ràccoon tànk bi rek moo di gën a surux. Mhm. mais ba tey rek gis nga fii. Mhm. xoolal wala gis nga xoolal xoolal ni mu féetee nii. ak ba tey Modou Lo ngi ci biiram nii. xam nga Modou Lo moo gën ba boo xoolee fële moo nekk ci biir. comme moo nekk ci biir nag dégg nga li ma toujours Modou Lo mu ngi cherché nu mu bëree ba daan rek. moom fi mu tey jii cherché wul dara dara dara dara wutul xeex wutul jéem a dóor jéemul kor jéemul def dara ba tey gis nga googu mu dóor gisagul nga benn corpé mu dóor lépp dóor yi da ko bàyyee ak bàyyi ma njoon mhm. bàyyi ma njoon mooy jéem a dóor mooy kette xeex boobu bu kondee da lay solal mhm. dafa waroon am na foo xam ne fuy téye waa bëri moom it am foo xam ne bu fa téye da ngay noppalu mhm. parce que bëri di nga am foo xam ne waa ji bu la fa téye nga xam ne fii du la fi daan doo ko fi daan da nga fay noppalu da nga fay am 30 secondes yoo xam ne da nga fay récupérer waat man jëlaat suuf ñu dem mais per fii dafa mel ni. waaw delluwaatal tuuti sëñ. waaw fii dafa mel ni mbir am na. waaw parce que Baye Mandione bi mu rëppee Modou Lo. waaw delluwaatal ginnaaw tuut. tuuti waaw ñii nee nañ euh, quatre appuis la. ñii nee nañ trois appila la. fii. lan nga bàyyi mu def xam nga que quatre appuis bi bii. bu hmm. fekkoon ne arbitre bi gis na ko. Hmm. quatre appuis yi xam nga quatre appuis yi ñun ñu newoon ci kaw tribune bi yëpp kenn kenn mënu la wax ne man gis naa quatre appuis. Hmm. kañ nga ko mën a gis bi ko télé bi wanee caméra yi mm-hmm. xarale yu bees yi nga mm-hmm. xam ne ñooy génne yi nëbbu yëpp ñoo koy feeñal mm-hmm. yi nëbbu nag yu feeñ boo ko feeñalee yow léegi yow tam ci ngay mën ne ah fii kat bëri bi jeexoon na loolu mën naa échapper arbitre bi ni mu échapper noonu lay échapper arbitre bi xam naa échapper na arbitre bi nag moo tax mu bàyyi action continuer mais bu fekkee ne quatre app yi moom amoon na taxawoon na kon Modou daanu na parce que quatre appuis dañ ne dégg nga bu car appui amee ci bëri ñaar bu ñu jaxasoo hmm. ba ñeent ke sa ñaari loxo dem sa ñaari oom dem ki ñaari oom dem daal kooko daanu na hmm. dégg kon mais ci beneen angle bi ñu wan dañuy mel ni dañuy gis Modou Lo euh, mu mel ni ku def kat quatre appuis parce que ñu ñu ci bari dañuy wax tànk yi fekkantewul ñii ne tànk yi fekkante na mais fii ni ñu gis nii. gis mm-hmm. nga ñaari appels ngi ne ci suuf. waaw ñaari loxo moo Lo ngi nii beneen loxo mi ngi nii baa mi ñëw na ko nëbb. voilà kon nag kon léegi loolu bu amee. Mm-hmm. léegi c' est ki nga xam ne moo la arbitré ak yore bu amee Modou daal na. kon njuumte ak arbitre. njuumte arbitre am na. Mm-hmm. waaye nag dafa am loo xam ne bët da koo mënta gis. xam nga li mu bët mënta gis loo xam ne caméra moo ko mën a génne wala ralenti moo ko mën a wane loolu bët mënu koo gis loolu arbitrage mënu koo gis moo tax action bi mu bàyyi action bi continuer bi action bi continuer ba continuer nag foofu la jël ba ka mujj boon nag boobu dañu jox victoire parce que boobu mooy bi bi bii leeru ci kenn xëy na papa ma wax leen ba bàyyi ma ñoon tamit su fekkee ne bi ci biir bëri action bi gis na ne Pape moo euh, Lo def na kadap bi dafa doon bàyyi rek tàllal loxoom yëkkati mais dafa continuer action dafa continuer action bu continuer action bi arbitre day bàyyi combat bi continuer hmm. pour moom dara amul parce que Modou Lo ba ah, am ah, kii ah, nu mu tëddi bàyyi ma njoon su ko wóoree ne ki may bëri def na kalap bi mhm. léegi lu may continuer di action dañu waxante dëgg day taxaw da war a taxaw rek taalal loxoom mhm. na kalap bi mhm. waaw su ko ñu naa dañ dellu xool bu ko waajee noonu ko duñ ko homologué duñ ko homologué dañ naan na parce que bàyyi ma ñoon tax mu taal loxo dafa def kaat ñu ne wane leen ko ñu wane ko ñëpp gis ko mais dafa continuer action bi moom bàyyi ma njoon ñu dem ñu dem ba tey bi mu continuer mu ngi topp ci combat bi. waaw mu ngi topp ci combat ba tey gis nga fii ba tey na ko mu rasu. Mm. xam nga tey ba rasu na gis nga ngi rasu nii. Mm. mais gis nga loxo bi loxo Modou Lo gis nga mu bëgg a jaar ci plan mm. bi. gis nga du ko fii bopp ne. ci biir loos bi la ko dugal fii la ko waroon dugal. Mm-hmm. waaw pour Modou du mën a bëtt. waaw du mën a bëtt parce que bu ko bàyyee fii Modou bu bëttee ci boxtaan bi la jaar da koy war ndomba mm-hmm. parce que Modou tamit fii bëri na fi bëri bu rëy boo xam ne bi Euh, caxabal bi lay wut. Mhm. tànk bii ñëw na mais tànk bu langee ci lañ lay mën caxabal mais bu benn demee benn ci ginnaaw mhm. doo mën def koshigari aussi moom la judoka yi wax oshigari boobu. Mhm. dafa am ushigari ak koshigari. waaw ñu dem. voilà gis nga. fii Baye Mandione a ngi dóor. waaw ba Baye Mandione tuddali voilà gis nga tànk te teelul tànk bi fi mu rafet tànk bi delloo ma fa. delluwaatal delloo ma. dellu. fi mu rafet tànk bi dellu. dellu. Ah, bàyyi mu dem. voilà gis nga voilà gis nga action bi ne ku la ko def hmm. léegi nag gis nga moom ci boppam droite mbële wala teg ci pouce bi la la teg fii ci ndigg li gis nga loxo mu fii hmm. loxo bi droite mbële hmm. lay teg ci ndigg li pousse ko bu daa ci tànk bi su ko defee du waa ji du ko def Modou du mën a yegsi du du mën a yegsi très bien gis nga li may wax day daal di pousse terrain bi Modou du mën a si mais fekk Modou tafoo ci kawam kii du du baax mais bu tafoo ci kawam nag dégg nga bu amul équilibre day daanu moo tax gis nga gis nga caxabalu biir ba mu ko dugal hmm. caxabalu biir boobu rek pour nga génn ci tànk bi ci ginnaaw fii lay nekk day nekk ci sa ginnaaw ni nga teg sa loxo droite bëri pousse rein bi pousse bañ laa tafu hmm. comprendre nga hmm. bu la rek doo ci yow dara ay ca ñu dem waaw ba tey Modou xam nga ba tey xeexul bu ngay bëri rek Père Baye Mandione daa mel ni teggi na waaw tànk bi bëri teggi na tànk bëri ci waaw mais tànk bi gis nga bi mu tànk tànk bu génn na waaw ay ca ñu dem ñu dem gis nga Hmm. léegi nag fii itam bàyyi ma ñoon amoon amoon na lu neex hmm. amoon na lu neex gis nga fii lu hmm. jéem a def dara lu may gis nga fii ne dafa waroon a gis nga gauche am bii dégg nga mais foog mu amoon déplacement tànk yi bu defee dóor bi day taf tànk bi ci biir pla yëg ko maanaam genre taf da koy taf day taf loxoom ci paqataan tànk bi yéeg ko moom day tëdd na le ba tey bëri bi jeexoon na mais moom lan moo tax Modou Lo bëtt ko fii euh, ba ba bopp Modou génn na ba ba war a génn ci ci poqataanu Baye Mandione. waaw parce que moo ubbi poqataan bi poqataan boo ko fermé woon kay boppam du fa jaar. Mm. ko tëjee poqataan bi bal loxoom dégg nga mooy li ma la su ko nii. Mm. dégg nga foofu loxoom moo parce que su ko la. Mm-hmm. est ce que moom balaa nga ma la mm-hmm. day tëdd mu jaar ci poqataan bi ubbi bi fa lay jaar. moom booy ma bi mu def mooy dafa ubbi poqataan bi. Mm-hmm. mais poqataan bi boo ko woon du fa jaar. Moodu du fa mën a jaar ay ñu dem ñu dem. gis nga voilà ah. moo di nag du bëri na ko ba wër ko na ko na xam nga fii ne bëri bi ah. fii mu ne nag bàyyi ma njoon wërsëg rek ko ciy génnee mhm. fii ne nii lii lépp moom moo fii naa la wax leen. Mhm. gis nga quatre appuis jooju ñuy wax quatre appuis yëpp yëpp yëpp mhm. su wóoroon bàyyi ma ñor ne booy bi def na kat appuis. Mhm. mu wóor at bi bëre bi doog si fii yëpp. parce que bërëb bi ni mu continuer. dafa dafa yàgg dafa yàgg te bàyyi ma ñor te bu mais juge yi nga xam ne tam dama leen tànn. xam nga at bi am na benn at bi at bi central bi moo nekk na le. waaw am na ñaari juge yoo xam ne toog na le ak keneen ku toog na le. kenn toog ci benn waaw ñoom ñett suñu toogee di xool mais euh, loo tax may loo xam ne kii mënu ko wane bët mënu koo gis. caméra ko mën a wane. Mm-hmm. mooy ay flash seconde lay doon xefe xippi lay doon. Mm-hmm. yaa ngi dégg li ma wax yooyu tax mu échappé leen bu fekkee carte d'appui am na loolu tax loolu lépp échappé leen. Mm-hmm. yaa ngi dégg li ma wax. mais comme carte d'appui mu échappé na leen moo tax bàyyi ma même bàyyi ma njoon bi échappé na ko parce que bu fekkee échappé wu koon carte d'appui échappé wu koon bi waa ji mooy li ma la wax day tàllal loxo rek mu ne daan naa. daan naa même bu ko waa ci suuf sax. duñ ko amagale parce que am nañu daanu na hmm. waaye dafa continuer action bi gis nga ñu bëri hmm. fexe ba wër ko ndomba ni wër ndomba bi mu sampee ñaar loxo ni benn tànk sukk na mais bii taxaw na hmm. dafa waroon gis nga benn loxom bi bii mooy appui bi mais loxom ba waroon ci kii bi ci poignet bi génn benn loxo bi daal def rotation pour yéem a rëcc waaw fii am na rëcc waaye rëcc bi loxo bii ngay teg ci suuf pour am appui léegi nag beneen loxo ba ci boppam bu ñu amoon mooy li ma la wax sax am na ci yoo xam ne foog ñu wane ko ci waaw hmm. ni ngay def pour jéem a rëcc bu la waree ndombo parce que fii la waree ndombo hmm. hmm. parce que moom ci boppam tànk Modou Lo bi ci ginnaaw nii na ko amul fu mu ko jàpp amul fu mu jàpp téex ko waaye fii bi mu sàppee loxo bi beneen loxo ba la liibar loxo droite ba moom la war a génnee ñaari loxo ni mu jàppee nii loxo bi bii ëpp mais benn bi lay dindi pour jéem a rëcc père li ma jaaxal fi mooy wër ndomba bi. Hmm. dafa gaaw trop Modou dafa wër ndomba Baye Mandione. waaw ah. Baye Mandione daanu ñu dem. mais action yi nag action bee gaaw parce que fii tamit action bi enchaînement la. enchaînement bu ko ne da ngay sonn. Hmm. fii bu ak gis nga bëri bi fii hmm. que fii jéemu rëcc. parce que waa ji dafa tafu ci ko am complètement. waaw dafa tafu ci côté am wiite ko ginnaaw ba fële te bëri bi action bi dafa jaxasoo jaxasoo ba nga xam ne bi kooku soo amul condition bu wóor a wóor da ngay dem ba jeex tàkk. soo xasee jeex ba tàkk nag taxawatoo da ngay tëdd ñu dem waaw ah, gis nga da koy daal di këpp. Hmm. gis nga moo tax léegi nag moom bi mu daanoon nii ba pare. Hmm. waaw ci la jóg nag ñëw nag di la jant ne amoon na kàddaap yi mais kàddaap li tax mënu ko ci am ndam xam nga lu tax. Hmm. parce que boo fa mu ko xeexee la ko xeexewul. ah yow bu fekkee ne léegi dara dara daal ci biir combat kaase woo ko bàyyi ba loolu kaase ba joxul taal ba dem ba pare nga doon koo kaas. mais doo am ndam. mais père moom dugal na recours lu tax recours bi kon génnul ah, parce que yóbbuwoon na ay image yoo xamante ni. waaw ah. mënoon nañ ci sukkandiku ba jox ko li nga xamante ne mooy victoire. mais loolu nag foofu joxoon ko ba victoire. Mm-hmm. Euh, xaw lu tax defuñu ko loolu man mënuma ci sori. parce que mm-hmm. xaw ma lu tax defuñu ko. Mm-hmm. parce que commission boobu nekkuma fa. waaye parce que commission boobu dañu duli mbër. ñu jàkkaarloo kenn waaw. commission boobu dañu duli mbër te mbër ba. du ñuy mbër te mbër nekku ca. parce que boo fekkee da ngay ñëw di àtte bëre. da ngaa war a àtte ñoo xam ne dañoo yàgg ci làmb mën a bëri am fu ñu ko jàng waaye ñoo xam ne ñi mbappatu yu yu yaa ngi dégg baal leen ma de ñàkk bi dafa bee tàng nag mm. fi ñuy émissionné dafa tàng ni lool waaw xam naa ne sunu patron bi dina xam ne mm. fii war na fee def benn crime ak tàngoor bi mm. ngeen jéggal ma yi ñu seetaan gis nga booy seet booy atteloo ni dara day fekk mu jàng loolu parce que action bëre yi ni mu demee ñu ci bari échappé neen parce que dañoo bëreewul mais su fekkoon ne bëreewoon nañu mën nañoo am xam-xamu ne waa bi mu defee def na wala def na dara du ne sàppe mais li leen dal li dal arbitre yi fii mën naa dal mbër mën naa dal ku nekk parce que action continue dafa gaaw te xam nga bëri lu koy leer leeral wëlbit gàng sukk naag raam naag def nii waaye wëlbit gàng amul werante amul am nañ dem xool télévision wala nañ dem xool image nañ xool image yi waaw parce que Modou Lo moo daan jël jël bi leer bi nga xam ne bii amul nañ ko xoole mo moo Modou Lo ko daan hmm. bu fekkee am na ca biir échappé na la échappé na ma échappé na keneen échappé hmm. na moom baal ma bàyyi ma ñoon ci boppam échappé hmm. na ko hmm. parce que foo mu ko dalee rek la waroon tàllal loo xam ne daan naa ah seetaan rek lu wax bu yoon demandé ko noonu la demee bu tàllaloon loo xam rek ne see daan naa dañuy dem seeti image yi bu boobaa na ñu ne ah recours bi kat ma ngi xool kii kat fii ne wax na dëgg kat parce que li tax mu tàllal loo lii amoon na waaye ñëpp la échappé ku ne laa mujj échappé na la ñu kon ne action bi kon ne bëri bi jaxasoo bëri bi neex bëri bi jaxasoo ba ñëpp dem ba mu loolu daan ko jël ba amul benn werante hmm. amul làmbal ma amul xaralaat bi hmm. waaw moo tax ñu jox ko bi tubaab man nag sama gis-gis laa gis te hmm. yéen ñi seetaan man noonu laa analysé mbooj ak ñoom biréw ndaw ndooyu maa ngi koy nuyu ak soxnaam dégg nga soxnaam ndooyu maa ngi leen di seen ndooyu maa ngi ñëpp mais rek ñoom si boppam moom sama waay la moom it ñëw ñu xool wax parce que ba ma laajee tamit comme wax na la ñu teg yi ñu suñu xalaat lii la ci ah yow am nga ci xalaat ñuy seetaan am nañ ci xalaat mm-hmm. mais man sama xalaat ci combat bi lii la am na solo waaw mbokk yi loolu lañ leen indi doon tey ci jàngat lamb bàyyi jiili ak Père mm-hmm. euh, ñu ngi woon combat boo xamante ni combat bu neex la gis nañ ci ay technique gis nañ ci bëre gis nañ ci njàmbaar yi daal ñu dox ci diggante Baye Mandione ak Modou Lo ñu nekkoon ñaari gaynde yoo xamante ni ñu doon bëre keroog waaye gis ngeen fi lamb ji mujjee kii di Modou Lo moo mujjee daan Mm-hmm. ni ko père décortiqué noonu yëpp noonu lañ ko gisee. Mm-hmm. père ma lay jaajëfalaat bu baax a baax a ci ànd bu rafet waaw di kontaan rek di ñaan yàlla yàlla yàlla yàlla def mu suñu mujj taxawaay rek. Mm-hmm. parce que tamit wax dëgg yàlla combat yi ngay génne yëpp ñu ko fàttali ko di ko waxtaanee. ak làmb ji ni mu tolloo temps yi nga passé xam nga xam ne ñu ngi ci Covid bi. dégg nga di ñaan yàlla ñu reprendre at xale yi delluwaat ci forme gaa yaa ngi entraîné. ñu préparé làmb dellu fa mu nekkoon wala mu raw fa mu nekkoon sax. loolu lañ koy ñaana xale yi ci toll. ah moo tax ñuy génne combat yi passé di ci waxtaanaat waaw mais yeneen a ngi ñëw yoo xam ne bu ñu fi yàlla may wér ak fekk ak tal eh, yooyu yëpp dinañ ci analyser waxtaan suñuy combat dinañ wax avant ak après hmm. combat buy ñëw dinañ wax nii nañ gisee hmm. bu passé tamit ñu analyser toog at waxtaan ci waaw may rafetlu sa xam-xam ak say hmm. question yëpp tamit waaw di la jaajëfal leer na rafet na sell na jërëjëf kon nag maa ngi gërëm yëpp di sant yëpp waaw kon nag jàmm semaine prochaine rek. ñu hmm. ngi diwaat beneen comme beneen jàngat waxtaan ak. incha allah waaw. kon mbokk noonu lañ leen di tàggoo ba ëllëg incha ci beneen jàngat làmb. Adama nee na keroog joxaatuma la loxo bi. Ah. <laughs> waaw jaajëf Adama jërëjëf moom xam nga. Ah. sa waay la da lay tooñ. Ah. <laughs> Adama moom sa gars yi fii daal jàmm laa fi gis. parce ay moroom a fi daje. ak seen papa man xalaa dégg nga ci ak génération ngeen daje tooñante foonte kafre loolu laa fi gis. te yàlla na fi yàlla saxal loolu. amiin amiin tooñante bi kafante bi grand bi. loolu lépp. luy defar mbooloo la waaw waaw mais luy def mbooloo sikk gi yëpp mooy wax jàmm rek waxi jàmm li ñuy reeru rek wax waxi reeru rek tooñ raayante waxtaan loolu lépp jàmm ko ni mm. waaye bu ñëwoon kenn ku nekk beeru sa ruq bopp mm. kenn ku ne jaay tawal ni loolu day yàq liggéey bi liggéey bi li koy defal mooy xàccee doo da wax ak di fo di di ree di waxtaan parce que fii moo leen boole mooy mën na leen jural lu ne suba ñii mën nga cee takk seeru keneen wala kenn takk sa seer mm. wala sa doom seen ngeen dem ba sa seen i doom di sëy kàggu bi dem na suñu kër ko. gis nga ko. loolu lépp tey gis nga ma ne suñuy to seen i sët sax laa wax mën nañu xam ne ñii tey dem ba jur famille boo xam ne bi mm-hmm. dañ naan wasaare la ñu xamante woon kat moo indi famille yi mm-hmm. loolu lépp ànd bu rafet a ko yëndi kon yàlla yàlla sa defaral ànd bi rek jërë ngeen jëf ndaa laa ñaari yoon kon boo jaar booba laa mëne boo jaar fafa mëne dama mën ci bii boor mën ca bee boor man ci yi boor ak ci yële yi boor bàyyi fas si nu roowu mag ñoom tuuna rëy ma juub waa na roy ma saay maa ko baaxi jeeg ñii ma yor si jeeg